Euh, di wax ne Abdou Mbow honorable député mooy sunu président groupe parlementaire te bataaxal boobu mu génnee groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moo ko génnee moom nag mooy njiit bi moo koy signé waaye jàppal ne képp koo xam ne bokk na ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar lii Abdou Mbow euh, signé ñun ñëpp la engagé parce que ñoo ko defandoo euh, démb nag wax nga ko RFM matin ki nga xam ne mooy ministre porte parole du gouvernement am na kàddu yu mu yëkkati kàddu na yoo xam ne kàddu yu manqué élégance kàddu yoo xam ne yu yu teguwul jëmale ko ci ñoo xam ne askan Sénégal moo leen fal muy ñun député yi ñu ñu tabbuñu au suffrage universel direct comme ñu tabboo ki nga xam ne mooy la président de tous les Sénégalais son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon kooku buy wax ci député yi dafa war amu dafa war a ànd ak cër mu xam ne ñun député Benno Bokk Yaakaar te kenn mënuñoo xoxatal li ñuy liggéey xam nañu ko askan la ñu assemblée nationale kon ku yëkkati kàddu jëmale ko ci ñun dafa war a ànd ak war ma ànd ak li nga xam ne mooy respect institution bi ñu représenté. Mhm. mais dañoo seetlu itam seen seen tekk-tekkaaral yéen opposition bu bees bi bi ñoom Bassirou Diomaye Faye ak Sonko falo ba léegi est-ce que tegtalu seen njiit Macky Sall la wala euh, nii rek la war a demee bu nguur gu bees amee. ngeen euh, def bal à terre euh, lu xew seen diggante yéen ak euh, nguur gu bees ki waaw tekk tekkaar amul ndax gi nga ñuy dégg yéen ak ñuy ñuy wax yéen ñuy dégg ñuy wax opposition nag ñun opposition républicaine la ñu nàmm def mooy li ñu bëgg a def taxawaay bi ñu bëgg indi ñun opposition boo xam ne du ñu yàq alalu jàmbur du ñu yàq alalu réew mi du ñu taal ay biens publics du ñu taal li nga xam ne mooy ay ay këru jàmbur ak di indi ay xoqatal donc opposition bu responsable moom moo ñu tax a jóg loolu moo waral nag xëy na euh, li fi ñi fi toog tey ware woon kuy xaar ci loolu ci ñun di taal di yàq ñun bi ñu yegg foofu mais daañu taxawal li nga xam ne mooy liggéeyal askanu Sénégal jouer rôle bi nga xam ne mooy rôle de veille d'alerte ak tamit euh, euh, li ñu askan bi sant en tant que muy député muy tamit ku du député toogal fi opposition bi ñu toog toogaay bu mat boobu donc tey li nga xam ne ñoom euh, euh, ñun tey yaakaar naa ne c'est pas la première fois la ñu génn wax boobu ba tey ñu ngi wax nag mais dañ koy dañuy opposé wu de façon bu am teggin